daleen nag jàmm ci FTN Média président Bassirou Diomaye Faye ba ñu ko falee ba tey ñu bare bari ñu ngi koy critiquer ci wàllu wax naan munu ko wala xëy na taxaw défendre la mu war a défendre na mu waree lu koy tëlay doon loola taskatu xibaar bi di a Ndour fay du ko wax ndax am na bés mu dalal président Bassirou Diomaye fay ci waxtaan woo xam ne dem na ba ca biir mel ni ku koy bëgg a taxañ waaye boobale bés président Bassirou Diomaye Faye woon na ko ni làmmiñ du lekk moroomam mukk te ñorul kon dañuy dem teew lu jiwaat waxtaan booba mujjoon na tàng jër waaye itam mujjoon na wone ne président Bassirou Diomaye fay mii du ko xam ne dangay ñëw rek patam patamee ko tek ñu and diglu ko waye balay booba ñu ngi leen di ñaan ngeen émi vidéo bi partager ko ngir ma ñeneen ñu mun ci jot bu leen faté itam abonné ci seen chaîne FTN Média té bëss cloche bi ngir dara dootu leen rëcc. les les les les Sénégalais parce que j'entends beaucoup de gens dire malgré ces explications lan la doon wut ci salon ba sank nga né alerté nañ leen alerté nañ leen ngeen continuer dem ci salon ba vous pensez qu'aujourd'hui yéen mën ngeen mobiliser l'opinion après situation bi ngeen nek ne xaw ma may parce que yow li am tay ñan ñoko def l'opinion c'est pas l'opinion c'est qui c'est des jeunes qui se réclament d'Ousmane Sonko c'est des jeunes aujourd'hui qui étaient prêts à donner leur vie d'accord légui pour Ousmane Sonko c'est pas les Sénégalais ay lan ay Gabonais lañ ñooñu déedéet déedéet c'est des Sénégalais ah, la nuance est importante c'est pas les Sénégalais jërëjëf voilà légui nak kon amna fi cause bo xamante ne na mobiliser les Sénégalais parce que ce que la déggee avec ak français yi les sénégalais sénégalais les sénégalais ce sont les 16 euh, millions. Euh, de sénégalais ce sont des sénégalais qui ont ñoo présenté au domicile de Ousmane Sonko pour protester sachant que euh, mobiliser les sénégalais 15-16 millions de sénégalais yi kon boo laaj ndax les 16 millions de sénégalais la. parce que sama yaay mi nekk fere ci kër ga feebar buñ ko mënuñu ko mobiliser mu génn ci mbir mi day xeex te ci 16 millions Sénégalais yooyu la bokk te bare naa ci bare naa ci ay moroom yoo xam te ne seen waajur ñu génn di xeex kilifa diine yi nekk ci seen kii yore seen course ñu ñaanal mu am seen métit ñooñu dañu génn ci biti di xeex te 16 millions de Sénégalais lañ bokk kon boobu bi nga xamee ne la nuance est importante et que les 16 millions mooy Sénégalais yépp kenn bañ des boo ma ko dee laaj jabaate weesu ko mais nak bo mais nit cause mobiliser les sénégalais définir ko les sénégalais c'est tous les sénégalais y compris même Macky mais mais mais mais mais mais mais mais euh, laisse-moi vas-y les sénégalais c'est les 16 millions de sénégalais ci bu fekkee les les sénégalais yi nga ma posé question mooy tous les sénégalais sans exception ndax ñun mën nañu leen mobiliser yow yaa ma gën a xam ne mobiliser wa APR pour ñu xeex ak Macky Sall ñu mobiliser Macky Sall pour mu xeex ak bopam kon su taxawé sa plateau bi ñu jàkkaarloog Sénégalais nga mel ndax mën ngeen mobiliser les 16 millions de sénégalais pour cette cause je dis yabaate la deuxième chose moy bu fekkee ne nag ñi nga gis tay c'est pas les sénégalais. Parce que dans ton entendement et ta nuance, les Sénégalais, c'est les 16 millions. Mais c'est des Sénégalais. ces Sénégalais-là, pour nous, ces, des Sénégalais-là, entre guillemets, pour nous, nous sommes prêts à donner leur vie. Nous savons nous sommes te xamuñu ñan ñoo nous rejoindre donc nous, lu ñu war leaders. ay leader on donne la posture de combat à Bord, te nag lépp loo xamante ni ñun mos nañ ko def may mun a dañ ci jiitu bu dee vape dañuy dem bay ji bu dee joxe deret dañ ci dañuy dem joxe ji deret bu heure faatu tam jotee tamit ñun ñoo cay njëkk a faatu après les sénégalais ñun xam lu ñu war def lu ñu war comme mouvement Yacine Fall lu mu tudd def lu la war ñeneen ñi li leen war est-ce que dañ ko def wala duñ ko def loolu ñoom la ndax ñun joguñu rek nekk ci engagement politique am na ñu ci jiitu doon xeex xale ay yoon. ñi nekk ci clandestinité am ñu ñu rajé Blondin job buñ koy rey juddooguma peut-être mais ñooñu ñoo ñoo ñoo ñu xalal yoon wi tey ba ma heure bi ma toog fii di wax sama droit fokk mu am ñoo xam ne dañ gën a leeral yoon wi bu fekkee ne am nañ ngor ci posture boobu lañ nekk may muuna est ce que ban issue lay xam xamuma mais man am naa yaakaar ne ñi ma gis ak détermination bu am bi parce que ils savent que c'est pas Pastef c'est pas Ousmane Sonko c'est la démocratie sénégalaise qui est en jeu alors je t'invite à un minimum d'élégance <laughs> un minimum d'élégance oui un minimum d'élégance Maïmouna rek ma on est en échange ah. moi je cherche à comprendre euh, je pense que nit mosul sur ci plateau bi dima naan yabaate la c'est-à-dire, moi, je te pose des questions. C'est-à-dire, nous mettons, mettons, Bassirou, apprenez à répondre aux questions. li ma li ma lay laaj neexul de. xam ko xam naa ne li ma lay laaj neexul ni la koy laajee non mais je suis dans mon rôle je pense que. Euh, ay toog naan yabaate la. man je suis une personne bien éduquée du ma ko yabaate non dama bëgg rek loolu dama bëgg rek dama bëgg ñu éviter parce que ñëw nga fi une première fois tu as utilisé un mot man su la dalalee damay damay damay damay tolérante xam nga lu ma personne n'est pas importante mais je pense qu'à un moment donné aussi il faut qu'on arrête ça. ah voilà xam nga lan moo la dal. voilà il faut ah, non non il faut il faut arrêter ça c'est-à-dire man su ma la dalaree. li ngay teg ci sama kaw euh, sama yoon nekk l'essentiel que man ma ma ma opte ma ma ma ma ma jot sama objectif. mais aussi je pense que il faut un minimum d'élégance un minimum d'élégance mooy man mënuma la dalal nekk une dame ma toog nga naan man da nga yabaate. ah mona euh, non, mais, non, mais il faut qu'on se dise les vérités, baséo. Je pense que ça devient une habitude. Je pense qu'on peut échanger sans pour autant Quand je dis les, 15, les 16 millions de Sénégalais, en 2012, les Sénégalais se sont mobilisés. Les Sénégalais. en 2012, les Sénégalais se sont mobilisés. Euh, les, les, les médias, les Sénégalais. Moi, quand je dis des Sénégalais, ce sont des gens qui sont vos militants, qui sont allés au domicile de Ousmane Sonko. problème son problème lan la merci beaucoup mënuloo encaisser une once <laughs> amul a encaisser man mënuma encaisser wallaay côté boobu ci ay fragilité les gens daj ci yéen non dañu dara justement parce que li ngay daj doon du dara c'est que ni nga ressentir moo métti gis nga non déglu ma mais jomaay c'est-à-dire man dama la déglu vas-y dama la may may yow ci sa taala man sénégalais c'est de incorrectitude ku quelqu'un de plutôt très serein et très calme je veux laaj amul man émission la pourtant la dernière fois beaucoup avaient considéré que Maïmouna était très agressif, les les les les Sénégalais parce que j'entends beaucoup de gens dire malgré ces explications lan la donne wut ci salon ba sank nga ne alerter nañ len alerter nañ len ngeen continuer dem ci salon ba vous pensez qu'aujourd'hui nous mun ngeen mobiliser l'opinion après situation bi ngeen nek ni xaw bo parce que yow li am tay ñan ñoko def l'opinion c'est quoi l'opinion c'est qui c'est des jeunes qui se réclament d'Ousmane Sonko. C'est des jeunes aujourd'hui qui étaient prêts à donner leur vie pour Ousmane Sonko. Ce pas les Sénégalais. C'est des Sénégalais. Ah, La nuance est importante. Ce pas les Sénégalais.